xam ne nag moo di nguuram daana am possibilité xam li nga xam ne nag mooy rapport Cour des comptes publié euh, mbirum litige foncier aussi bu ñuy wax dinañ ko xam waaye aussi entreprise étrangère yi nga xam ñoo implanté wu fii daan mën a xam aussi dara du komp dara du komp parce que ñi fa nekk di def liggéey boobu ay fonctionnaire lañu mhm. waaw ñoom président am na am na ñoo xam man nekkoon naa commissaire de police mhm. parce que tel naa ko nekk bi ma amee ñaar fukki at ñeent laa ne commissaire de liggéey na ak Abdoulaye Wade liggéey na ak Macky Sall mhm. mais ñooñu demuñu seen yoon donc ça veut dire que ñun fonctionnaires yi fii lañ nekk moo tax fonctionnaire waroon nangu ñu def pression si yow mhm. waaw da nga war a gëm yàlla xam ne li nga nekk yàlla moo la ko jox mhm. n'est-ce pas donc euh, nu mu tuddati Euh, lu mu soxla si renseignement dañ ko ko jox si saa si. Mhm. bu ko laaj léegi dans dix minutes ñu indil ko renseignement yëpp mais moom sax balaa muy ñëw foofu nekk président de la république am na ñu bëri yoo xam ne yëg na ko. Mhm. xam nga dégg ngeen moo doon wax ni am na koo xam ne dafa waroon fay cent cinquante milliards. Mhm. au lieu ñuy fay cent cinquante milliards léegi ay fonctionnaires Amadou Ba bi si la bokk. dem na ko léegi dangay ngay fay quatorze milliards. xool diggante cent cinquante milliards. ak quatorze milliards xam nga ni. bu fayee quatorze milliards am na ne leneen loo xam ne màccaat la. mais mm-hmm. jox na ko autorité yi. boobu yi moo fi nekk nañ ko dénoncer clairement. Mm-hmm. waaw te ñoom muy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye président mm-hmm. de la république dégg naa muy ne amul mbokk. amul rakk amul amul papa amul amul bokk deret et cetera amul bokk ay dëkkanu nee na lu yoon ci ñëpp lay tegu. Amadou Ba ñoom ñoo bokk seen. Euh, impôt et domaine boobu. absolument n'est-ce pas donc nañu commencé ci mom pour ñu yaakaar ni sa ñi gannaaw si kii lañu commencé du ñu bàyyi kenn. Mhm. waaye nag bu ñu jàppee ni way c'est un ancien ñoom Mamour Diallo c'est un ancien collègue et cetera du sotti de. Mhm. du sotti bu boobaa dañ leen di weddi te bu boobaa taxawaay bi ñu amoon am Macky Sall la am taxawaay boobu ak ñoom. exactement très important donc euh, ñu ngi daal di xaarandi rek euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu jëlee li nga xam ne nag moo di fonction euh, li nga xam ne nag moom la war njëkk a teg mais aussi ñu ngi xaar ci moom mu indi leeral sunu diggante ak France. ñeneen ñi ngi wax dana war tàqali France pour de bon parce que rupture nañu wax te yàlla euh, jox nañu ko si euh, ki nga xam ne Bassirou Diomaye Faye est-ce que lépp loo xam ne collaboration la suñu diggante ak France dañ ko war tàbbi géej pour ubbiwaat li nga xam nag moo di aventure bu loolu ñoom bu ñu ko defee rek ma xam ne ay cuune mhm. de relation. Euh, depuis indépendance ba léegi ñun ak ñoom la et cetera. Mhm. donc am na côté positif comme am na côté négatif. Mm mais côté vraiment sunu indépendance amuñu ko ci fànn yëpp. fi mu ne fii tubaab yi ñoo teggi nawal fi waaye nag doo ñëw rek si saa si rek nga ne koy da éliminer parce que boo ko defee dëkk bi ngay lor. Mhm. population ngay lor. ñenn ñi ndànk-ndànk da ngay dem ba maîtriser parce que mun nga nekk opposant di wax discours boo xam ne d' accord ñi ñi dañ ci d' accord xel da koy nangu. Mhm. mais boo demee ba toog am na ay réalité yoo xam ne moom ngay gérer. Mhm. waaw dootoo nekk di gérer ay rêve wala benn idéal da ngay gérer la réalité. donc loolu il faut mu tenir ci compte. même bu koy bàyyi sax mais ñoom waxuñu sax dañuy tëb tëb bàyyi ko. dana ne dañuy dem d' abord seet ak CEDEAO. naka la ñuy fexe ba ñu am seen euh, monnaie commune. n' est ce pas léegi bu ñu demee ba amul ñu monnaie commune boobu léegi bu boobaa ñoom ñu seet parce que balaa nga koy def ne sax da nga am sa moomeelu bopp. sa commune sa monnaie bopp da nga am yenn doole yi. boo amulee yenn doyee kii si rek ngay defar. mooy mhm. dëkk yi nga xam ne da ngay gis euh, euh, boo ñëwee si mbedd gis ñi ñi di jàll ay ay billets banque et cetera. Mhm. donc gannaaw pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw ce qui est sûr c' que on a les moyens d' avoir notre souveraineté. absolument léegi boo ko amee nag ci nga am sañ-sañ nag day ñii laa koy doxale mhm. parce que loolu nga yor ñii dañ ko soxla. boo nee da nga koy euh, boo xam ne yaa ngi koy tudde par exemple xaalis boo xam ne yaa ngi koy tudde dërëm. mais nit ñi dañuy obligé boobu pour ñu jënd sa marchandise. waaw mais yëf yi nag la. parce que gérer état du gérer parti. Mhm. gérer état du doo ko gérer ak ay émotion doo ko gérer ak ay slogan. Mhm. da nga koy gérer avec la réalité bu fi nekk. Mhm. réalité sociale réalité politique réalité nu mu tudd ci euh, économique. mais réalité aussi géostratégique ak géopolitique. exactement loolu loolu aussi ñu ngi koy daal di xaar mais aussi bëgg naa nga joxe sa gis-gis ndax léegi-léeg junj nga ko muy euh, CEDEAO. CEDEAO am na beneen kuréel bu judd su nu duppee alliance des états du Sahel est-ce que président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa war convaincre ñi nga xam ne ñoom ñoo formé kuréel googu nu ñëw rejoindre encore lii di CEDEAO mu nekk li nga xam moo di mission daanaka ñu ngi koy xaar ci moom. Mm-hmm. wala tey jii dafa war dem rejoindre li nga xam ne nag moo di kuréel googu alliance des états du Sahel. déedéet moom balaa muy convaincre ñële. Mm-hmm. parce que bu ñu toogee bu ñu munee convaincre indi yenn coppite yi. ci CEDEAO mais bu boobaa ci la ñu mën a dem ci ñeneen. Hmm. ne leen gis ngeen yëf yi soppeeku na. bu boobaa ñu xëy na dinañu mën a nangoo ñëw. mais fekk ni CEDEAO ni muy doxee nii CEDEAO ni muy doxee nii noonu la continuer ñële te ñii gisuñu benn changement boo xam ne loolu moo tax ñu génn mais duñu ñëw. mais est-ce si biir CEDEAO dina yomb bu fekkee loxo France génne wuñ ko si. waaw mais ça ça rek nañ jéem ñoom waaw Sénégal na jéem rek. fekk dem na ba nga xam ne tële na mais boobaa mu jël ay responsabilité c'est exactement loolu loolu aussi euh, doon na mbir moo xam ne lu am solo la en tout cas ñi nga xaarandi euh, kii di président Bassirou Diomaye Faye lan mooy doon première stratégie am jëmale ko ci wàllum euh, li nga xam ne moo di alliance des états du mais aussi sànq junj nga ko muy coalition bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo porté candidature Bassirou Diomaye Faye meeting bi nga xam ne moo nekkoon meeting clôture fële ci stade Caroline Faye bu Mbour président Ousmane képp ku liggéey ak ñoom cela ne veut ba jël li nga xam nag moo di nguur gi da ngay am ndombal tànk si li nga xam ne nag moo di ci euh, ci biir gouvernement boobu tey ji lan nga mën a xaar ci biir coalition boobu ci niveau euh, gouvernement bi nga xam ne moom la xaarandi. waaw mais nga xam ne moom am na léegi ñu ngi si affaire état. Mhm. waaw coalition bi mu ngi fii xëy na dina sax xëy na mu ngi préparé aussi pour les législatives. Mhm. mais li muy wax aussi dëgg la maanaam c'est pas parce que indi nga ay bâche takk nga ay bâche. Mhm. jënd nga ñaari nag moo tax ñu war la sëdd c'est pas possible. te ni ma ko waxee affaire bi xeexu peuple bi la. xeexul waa waa waa waa Pastef la. Mhm. xeex société civile la xeexu ñëpp la ñun ñii man mii bokk naa si xeex bi. Mhm. je crois Sénégal yëpp mën nañ ko seede. waaye nag voilà donc c'est pas parce que xeex nga parce que sama compagnie yi bëri na ci ñoo xam ne dañ ko def parce que dana gëm état. Mhm. dana bëgg yëf yi soppeeku ils le font par devoir et par patriotisme. donc patriote du ko bokk Pastef rek patriote. segment de la population bu ne yaa ngi fa donc moo tax mu teel leen artu mhm. parce que am na ñoo xam ne ñu nga fa ñu ngi yaakaar ñu sédd leen effectivement ñu la bëgg a artu mhm. am na ñoo xam ne si mujjanteel gi la ñu ñëw dugg ci biir mais kuy ñëw nag ne mu ngi lay dimbali ci élection ay baat la ñu soxla doo ko dàq mhm. waaye am na ñoo xam ne warul mën a collaborer collaborer wax dëgg yàlla nest pas donc am na ñoo xam ne nag bu demee ba toog nii ba jomaay toog nii di nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw di def transhumance moom laa leen wax ne transhumance il n'en est même pas question soxlawuñu ci kenn. waaw parce que du transhumant yi ñoo participer ci ci xeex bi donc soxlawuñu leen. bon dégg naa dégg aussi euh, responsable Pastef yi di wax ni euh, dañuy am traitement égalitaire. ci Sénégalais yëpp d'accord naa ci. loolu moo war a am mais am na loo xam ne warut a am. muy lan muy lan mooy yow Diomaye yow Sonko. ak say responsable bañ leen di saaga. di leen di toroxal di leen di gazer di leen di dóor n'est-ce di hmm. toroxal seen njaboot di toroxal seen waajur yi am na sénégalais yoo xam ne dañoo jóg ni lu du am. Hmm. ba ñàkk seen bakkan ñi ñuy laago ci ñi ñu perte seen liggéey. Hmm. ñi ñu tàggoo seen seen njaboot tas. jamono yooyu am na yeneen sénégalais yoo xam ne ñu ngi ne ñëw lii moo baax ci yéen. waaw yëf yi sax des na. gouvernement bi dafa war a dolli làmbali yëf yi effectivement waaw parce que ñi dañoo réew ñi ay salafis lañu ñi ay ay ay bandi lañu ay xale yu réew lañu et cetera waaye léegi est-ce que yoon la yow nga traité de la même manière sénégalais yii la doon jàppal ak ñi nga xam ne ñu ngi la doon ngañ hmm. ah boo leen boo ne c'est la même chose rek bu boobaa man sama wàllu boobu dinaa génn ci yéen hmm. waaw parce que bu boobaa na dinaa ne jarul ñu leen di xeexal hmm. waaw donc ay sénégalais lañu dañ leen traité tous comme de sénégalais waaye nag comme je dis dafa am un devoir de reconnaissance. Mm-hmm. boo xam ne n'est-ce pas euh, autorité yi vient mais dañ ko war a dañ ko war a kii euh, dañ ko dañ ko war a reconnaître. Mm-hmm. waaw heureusement que chaque fois bu ñu jëlee dañuy ne ndam mi du ñun rek mais peuple bi la effectivement peuple bi moo xeex. Mm-hmm. ñun ñi nekk ci biir Sénégal ak diaspora bi. waaw diaspora bi wax dëgg yàlla est-ce que war nañu mën a traité diaspora xool li ñu daj. ak li ñuy def ak sacrifice boobu lañ def kooku war nga ko mën a tëqale ak ay nu mu tuddati ay député Matar Ba ay dé Matar Matar Diop. Hmm. député nu mu tuddati Cheikh Seck et ñoo ñooñu nga xam ne dana toog digg assemblée nationale wax lu nekk yekk lu nekk. Ah, hmm. ku mel ni Suzanne Camara toog ne nañ dem rey ma kii. Euh, son Ousmane Sonko. Hmm. mais kooku dama sax procureur moo tax président Diakher Faye Basirou li muy war a def ci lu gaaw mooy mu changé procureur yi. pour que même fekk ne Ousmane Sonko am na stature ak dignité ak transcendance boo xam ne du topp ñi hmm. mais moi en tant que procureur na leen topp parce que c'est un appel au meurtre hmm. donc dina am ñoo xam ne ñu bëri parce que prescription amagul hmm. waaw ça fait un an deux ans motagul trois ans. te prescription bi euh, trois ans la. donc moom procureur mun na jël ay responsabilités def autosaisine mais toppal ci yoon. parce que mm. c' pas normal quand même. exactement voilà dafa gouvernement bi ñëw est ce que yaakaar nga euh, PDS dina ci am li nga xam ne nag moo di responsable maanaam nu am ci ministre wala nu am ci nu am ci leneen est que yaakaar nga loolu. ça dépend ci ci ñi fi nekk rek. parce que parce que parce que PDS boo gisee ma dernière minute nañu ñëw naam sax euh, yeewee askan wi amoon na benn intercoalition ci élection législative yi donc bu ñëwee regroupé waat dernière minute ci li nga xam ne nag mooy élection présidentielle yi euh, pour soutenir candidat bi di Bassirou Diomaye Faye ñoom jàpp na ni carrément euh, PDS bu nu amee bu nekkee ci amoon gouvernement bu président Diomaye Faye mën na leen porter préjudice est-ce que am nga yaakaar boobu. non mhm. parce que nit ki mënoo ko tuumaal ne nit kii mënoon na mënoon na dafa jël ay milliards jox ay juge constitutionnel pour seen candidat ñu ñu ñu ñu écarté ko mais nga bëgg wëlbati ko aussi dem di ko jàppale pour mu nekk président de la république mhm. bés bu ñu ko defoon ñun ji dañuy génn si ñoom totalement mhm. totalement bu boobaa seen parti moom bieu boo dootul tekk ci dara donc ils l'ont fait parce que vraiment c'est par réalisme politique mhm. kii moo fi nekk te aussi xam ñu ñoom mosu nañu yore nguur gi. Mhm. xam ñu ay information yu bëri yoo xam ne xam nañu kii mooy jàll waaw balaa càgg nañ dem jàppale ko ma est-ce que loolu ñu jàppale war na tax ñu am poste ministre. Mhm. non weesuñu foofu gis nga man dama jàpp ni sax waruñu sax ko calculer à partir de département bi war na am ministre région bi war na am ministre julli ci quatre-vingt-quinze pour cent ñoom ñoo war a ëppale ministre gouvernement bi euh, chrétien yi tuuti la ñu war a am waa Casamance lii la ñu war a am déedéet ma ne ko loolu régime bi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république mhm. dafa war a dindi loolu ma ne boo amoon fukki ministres yoo xam ne ay chrétiens lañu mhm. fukki ministres yëpp dëkk Dakar te Sénégalais boo nekkoon fongale mel nga gis sa bopp seen liggéey mm. nañ leen def ministre. exactement waaw parce que am na ñoo xam ne dañ leen fay ministre fol mm. parce que dañ ñu ngi si gox bële mais waa gox boobu gisuñu leen gis faale wuñu leen amal su ñoom jëriñ. Mm. c' est la vérité. voilà c' est vérité moom. daanaka gis nañ ko si li nga xam ne régime bi léegi léegi da tudd point boo xam ne daf may fàttali kàddu yu doon yëkkati di ko jagleel kii di président Bassirou Diomaye Faye